spécial pack fête yegg na sama gars ak ren herbe épice waaw waaw sama gars yi six variétés yoo xamante ne benn bokku seeg sama morom. asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen ziar naa leen sama gaay yi na ma ko waxee woon rek <laughs> dige bor la waaw dige bor la ndax euh, waxoon naa leen beneen formule ak yeneen euh, yeneen femme yu bees ci Alphie Cuisine. waaw kay épices yi sax ñu ngi koy seede waaw ñu ngi koy seede ak ren herbe épice euh, waxoon naa leen maraton bi tey lay commencé le 5 jàpp le 29 décembre ñu ànd ci ak ren herbe épice fas yéene leen andil recette de fete yi ñu waxoon voilà on démarre benn croûte beurrée boo xamante ni moom la ñuy lal ci biir toujours di ci ànd ak ren herbe épice mu nekk pack fête yi nga xamante ni yéen a ngeeg ñetti point de vente à partir du 15 décembre. bu ngeen doxantoo foire de Dakar da ngeen fay fekk ren herbe épice mën a jënd ci pack yi nga xamante ni six variétés épices a nekk ci biir épice su sauce euh, épice su euh, nokkos épice su viande épice su lakk ginaar épice su fruit de mer ak épice su piquant laa jël parce que nooy na waaw ko code de code de bœuf tamit dina mën a reprendre def recette bi damay defar euh, benn purée de pomme de terre à la tayal boo xamante ni ay flocons de pomme de terre laay jël fas yéene defar purée bu neex moutarde bi dinaa ko soxla ak euh, chapelure bi euh, parce que moom laay ñëw mélanger épice bi nga xamante ni mooy épice soos dinaa def euh, épice nokkos voilà foog mu trouver équilibre bi nga xamante ni moom la épice yi di taxawee épice su soos bi ak épice su viande. 90 69 72 pour mën a am ci pack yi nga xamante ni tàmbali nañ ko waaye li ci des bariwul ay ca sama gars yi du ma fàtte légume sauté bi parce que toujours dama koy faral di wax bu ñuy lekk viande dañ ciy boole li nga xamante ni euh, mooy légume voilà pour mu gën a pour am digestion bu gën a facile facile avant tout ma def ma yeggali mise en place bi ma doon defar donc euh, pomme carottes yi ak euh, courgettes yi bu ñu paree maanaam bu ñu defee lañeer yi nii ba pare daal di koy dagg ni am décoration bu bu rafet ñoom it duñ ko fàtte donc dañ koy baxal ba pare euh, blanchir ko du ñor day nekk ci diggante ñor ak ñoru buñ ko baxalee ba pare daal di koy sotiwaat ci dëwlin voilà de épité ne moom mooy former croûte bi yii bu ñu saisiree côte de veau yi ba pare voilà bu ñu saisiree côte de veau yi ba pare euh, beurre bi nga xamante ne moom la ñuy jël lal ko ci kaw damay wàññi tuuti benn noix beurre bi parce que euh, après dama koy utiliser def euh, chapelure bi euh, moom laa jël def ko ci beurre bi voilà bu ko defee ma def tuuti xorom daal di koy épicé épice su viande épice su piquante épice su nokkos voilà nii nii nii live en direct nii en direct nii may dagg épice bi nii ngeen di gis waxee léegi Euh, kaani sélection de poivre maanaam ay poobar yu ñu sélectionné laaj xorom ak mélange épice moo nekk ci biir épice su nokkos bi donc euh, bu ñu nee kaani nag ku ne xam na kaani maanaam sunu façon nokkos euh, à la sénégalaise moom la ñu jël. Euh, def ko ci euh, épice u nokkos bi nga xamante ne c'est 100 pour cent naturel amul additif amul colorant yokkuñu ci dara loo xamante ne euh, dafay lore wala dafay gaañ parce que bu ñu nee 100 pour cent naturel mooy loo xamante ne ay produits naturels lu ñu jël wal ko ba mu mokk def ko ci li nga xamante ne moom mooy épice u nokkos bi voilà. léegi nag pour ngeen utiliser épice nokkos moom ku ne xam na ni fu ne lay dem voilà ci ceeb dina dem ci ceeb dina dem ci maafe voilà dina dem ci ceebu yàpp. Euh, ak plat yépp yi nga xamante ne dafay dem nokkos mën ngeen utiliser épice nokkos bu Reen Herbes bi pour def ko ci donc chaque fois bu ñuy bu ñuy ñëw ci euh, recettes yi donc chaque fois bu ñuy ñëw ci recette yi dinañuy def ay focus yoo xamante ni dañuy def taxaw seetlu expliquer leen bu baax lan ak lan moo nekk ci biir euh, épices yi nga xamante ni moom ngeen di faral di gis ci Alphie Cuisine. très très parfumé boo ko ubbee rek da ngay sentir cannelle bi oxo paprika bi cardamome ah non li lii ren herbicide da ko defaraat yée ren herbicide dafa yokk cere dolli dolli ñeex donc épice su viande waaw parce que dafa xaw a xaw am tuuti euh, goût piquant du saf trop mais tamit sa ça doit piquer un peu voilà moom tamit ñu def ko ci beurre bi voilà léegi li may dolli laaj lay nekk ak euh, mélange herbe herbe aromatique moom laay dolli pour former croûte beurre bi nga xamante ni mooy ñëw tegu ci kaw euh, côte de veau bi dañuy râper ci biir et puis sama potu persil bi persil séché bi parce que awma persil frais voilà moom tamit ñu def ko ci biir daal di jël kuddu moutarde voilà daal di koy mélanger léegi nag dañ koy jaxase ba mu nekk bëru pommade dinaa jege sil euh, caméra bi pour ñu gis bu baax lan moo nekk ci biir euh, saladier bi léegi nag sàppali ko voilà def nañ ci suñu sunu épice nokos def épice viande def épice piquante def ci laaj euh, chapelure xaaral ma dolli yëpp. parce que mooy tax affaire bi am tuuti effet croustillant voilà bu ko defee ñu daal di koy mélanger saisir sunu ay ah, ah, côte de veau ci poêle bi daal di jël nag sunu couche bi nga xamante ni dañ koy lal ci papier euh, sulfurisé wala ci ñaari papier film ba mu jàpp. ñu teg ko ci kaw wala rek nga jël sa kuddu rek waaw def ko noo ko sentiré rek jël sa kuddu rek def benn dànq voilà xaw ko tàcc tàccal rek teg ko ci kaw ndawal bi buñ ko saisiré ba pare avant ngay servir génne ko beneen saveur ngay am sama gaay léegi ñu jàll ci deuxième plan bi indi légumes yi et puis defar côte de veau yi. ayca ayca ayca ayca sama gaay yi fi ngeen toogee aywa aywa recette de fête yi commencé na. carotte bi lay njëkk jiital parce que temps de cuisson wu carotte moo gën a yàgg que temps de cuisson courgette donc cuisson carotte moo gën a yàgg euh, temps de cuisson courgette moo tax moom laay njëkk njëkk def. voilà léegi nag ñu xorom xorom kase parce que sama mélange baa ngi nii voilà li ma doon jam jam jàmb sànq ci ginnaaw mi ngi nii donc lii mën nañ ko utiliser après moom la ñuy utiliser après lal ko ci ndawal bi donc xam nga fii la nokkos yeeg saf-safal yépp fii la nekk ba pare donc lii dañ koy bàyyi nature mu ngi nokk xorom dong la ñuy def daal di koy saisir voilà dañuy xorom parce que ndawal moom buñ koy def toujours foog ñuy jikkee xorom sinon lu mu saf saf saw day lewet voilà mi ngoog bàyyi sunu pool ba mu sens mi pour mu mën a saisir buñ nee saisir voilà def tuuti dëwlin daal di ñëw def sunu kër voilà nañ ko ñett ñettee rek. voilà du soxla muy yàgg nag ndax euh, ndawal bu nooy la waaw côte de veau moom dëgërul mag yi sax mën nañ ko lekk ñi amul bëñ voilà damay màpp parce que euh, humidité bi maanaam tooy tooy bi boo ko rosee moom mooy tëb ba pare dafay tax doo am croûte croustillant bi gis nga lii nii voilà dañ koy màpp pomp ko ba mu wow gis nga ñaari côté yëpp bu coloré rek baax na léegi nag dañuy def comme cuisinier yi ni ñuy def beurre bi la ñuy jël daal di ko ciy def wàññi gaz bi et di ko arrosé voilà day tax ndawal bi gën a parfumé gis nga nii ni muy seeyee nii moom la ñuy jël voilà di ko arrosé nii ci ci ci ci ndawal mais nag soo ko tegee ci ci ci gaz bi te mu dëwlin bi sens dafay dafay lakk maanaam dëwlin bi day xëm beurre bi dafay xëm l'idéal mooy nga wàññi gaz bi gis nga daal di koy arrosé nii day tax euh, ndawal bi gën a am goût moo tax bu ñuy defar michu yi ñuy utiliser beurre beurre naa ah, koy lakk na ma. bu leen fàtte à partir du 15 décembre Reen Herbes Épices dafay dem ci foire de Dakar fi mën ngeen fa jënd seen ay épices jënd fa seen pàccet voilà. ñu dem ci légumes yi tuuti huile d'olive ay ayca ci légumes sauté yi donc épice su légume bi man moom laay def toujours ci légumes sauté yi wala wala épice su roof bi voilà tuuti épice su nokkosam du ko yàq de waaw kay. voilà tuuti persil dañuy xorom comme ni ma ko waxee woon euh, sachet purée yi ñuy jaay voilà moom laa jënd. léeg-léeg nga am gaynde temps voilà waaye nag baxal pomme de tamit dara dàq ko de voilà li ñuy def yëngal donc day dang voilà mun nañ ko teggi ci feu bi voilà léegi nag suñu amee texture bi ñu bëgg man damay def bër et puis def ci fromage parce que man damay bëgg purée mu saf noix de muscade beurre ak euh, fromage voilà purée nag bëri na façon ay ca ñu fromage ko voilà donc euh, côte de veau yi bokk na ci recette de fête yi ñu taamu veau reprendre ko voilà ñi bëgg def ak euh, viande d'agneau ak ñi bëgg def ak côte de côte de bœuf yooyu yëpp dina ñëw ok defaroon nañ fi ay côtelette d'agneau pané aux épices ay la mu saf dañu termine côte yi dugal ko ci fuur bi loo rek moo des sama gars yi loolu rek a ci des donc bàyyi nañu bàyyi nañu yàpp bi reposer donc nii lañuy jël lal ko ci nii voilà. ci croûte bi nii lay nii lay demee voilà nii daal lañ ko ci lale yi ay tee la euh, code de veau bi mooy moo nekk nii voilà mais bi euh, code double bi la moom mooy def tee bi nii donc fii dafay nooy nepp voilà ci kaw a kaw a kaw lañ koy teg tourné ko nii ndax deuxième bi xaj voilà voilà voilà aywa yëf yi pare na mi ngoog gis nga croûte bi voilà day croustillant nii xaw a am benn croûte mooy ñëw lalu nii ci kaw ndawal bi macha allah voilà tuuti légumes euh, purée de pomme de terre bi waaw am na mburu mburu ma ma ngay croustillant euh, légumes sauté bi ak euh, yeneen dog yi nga xamante ni ñoom ñoo desoon voilà purée pomme de terre bi mi ngoog première recette ci marathon fête yi voilà mu nekk côte de veau boo xamante ne dañ ci def benn croûte Euh, épicé voilà. toog mi nga wax sama gars yi ay ca euh, waaw yëf yi pare na waaw yëf yi pare na comme ni ma ko waxee woon rek euh, marathon fête yi commencé na di leen fàttali spécial pack fête yi nga xamante ni à du 15 da ngeen koy fekk foire de Dakar sinon ci même numéro téléphone bi 77 390 69 72 voilà su ngeen wootee ñu livré leen fépp fu ngeen nekk ci Dakar sinon yéen ñi nekk. Euh, ci diaspora bi ngeen dugg ci site internet bi daal di def li nga xamante ni mooy seen achat taal samay bougie daal moo ci des comme sama yaay dafa may teree lekk voilà euh, comme li ñuy wax côte de veau voilà laal mu dagg c'est très très tendre aywa morceau bi may naa ko waa team Alphie Cuisine euh, di leen jaajëfal et puis di leen jox rendez-vous demain incha allah demain ñu ñëw ci ab recette euh, apéritif dînatoire yi parce que bu ñu yéegalee niveau bi dañuy wàccee wàccee waat soog a yëgalaat donc fa ba léegi rangé gu ma donc mi ngoog je vous souhaite une très bonne dégustation et puis on se donne rendez-vous demain ci Alphie Cuisine euh, d'ici moo ko tax a jóg aywa jaajëfal naa leen sama gaay yi à demain incha allah. spécial pack fête yegg si na sama gars yi ak ren herbe épice waaw waaw sama gars yi six variétés épices yoo xamante ne benn bokku seek sama morom.